asamaan seet na fajar ñeenti ñiñ tànnoon war nañ seeni fas di ñoo xam ne ñu ñeew xel lañu ñu neexi làmmiñ lañu ñu mën a wax lañu ñu mën a sos lañu ñoo xëy ñoom ñeent kenn ku nekk war a fasam ñu dawal nag wut si mbul ba jënt bay dugg lañu ak si mbul dem France ca dëkk ba asamaan seet ca yoor yoor Lat Joor nag génne këram ñu tegal ko gàngu naa ci digg pénc mi mbooloo mi wër ko jaraaf yaa ngi toog saltige yi farakaba ak njaambur yi lépp lu aju ci buur rek ñëw nga ci pénc mi ña ngay upp nag Lat Joor ñii bës a ngi bës ñi koy defal yëfi nguur a ngi def yëfi nguur lëngéer bi moomee mi ngi kolkol rek di ko tegal ci gémmiñ gi muy seen kolkol buur yooyu ñu daan def kolkol bu neex lay doon xam naa sama caméra bu ci ñamoon benn dootu nangootee caméra ñu ngi koy kolkol Lat Joor rek di ko xol lëngéer bu mosaa aye nag loolu la ñu xamee ne lëngéer bii moo aye tey nis tuuti ñeent ñi nga xam ne nag ñoo jóge woon ba Njaay ñëw mbul war a kalaami nag Lat Joor ak Sonko ñu agsi nag buur yëkkati loxoom ñu arrêté nag way yi ak tëgg mi ak saraxole ak taggaate yi ñu daal di jéggat ba agsi ñëw nuyoo benn par benn Lat Joor xool leen leen waaw lan ngeen di dox ñu ne ko ah, ñun dey buur dafa am lu ñu yëkkati ndax ku ne xam na ne Tayba Njaay ci sa yilif la bokk mu ne dëggit ñu ne ko nootoo guy jamaa nootoo jabaas baal sànd njóob jandeer dëkk yooyu yëpp ba keroog ngay dem ndaam yàlla ñu yilif mu ne ci lu wér ñu ne ko nag dafa am loo xam ne bëgguñu mu bett la te mu ngi raam mu ne leen loolu lan la ñu ne ko dafa am ku fay woote nguur bëgg nekk nag buuru Tayba Njaay Lat Joor ne bërét ak manto bi daal tey nag dégg daw bu dëgër muy fitaram ñaar ngeen ngi mu yóbbu woon deqale daal di fëgg nag laar bi laaru mbax na may kàndan ca doq ga Lat jóg daal bot yi dox juróom-ñaari jéego taxaw geesu leen ëcc ci manto bi ba daar da jiy feeñ mu xool leen ba bët yi bu ci weñ tongee du xef Lat Joor na Samba Baye man man kan moo ñu may tëggu nguur ci sama moomeel kan la ñu ne ko Lat Joor ñun ñeent ñi duñu bokk genn kàddu muy kàddu gu ñu wóorut lu nu wax ma nañ koo waat am na fa ca dëkk ba koo xam ne ma ngay tegi article am bëggatul ca dëkk ba ku fa lekk yàpp wata boor bëggatul ku fa damm yàq bëggatul ci dëkk ba ku fa duur gone soo amee sa soxna lu mu la def ak lu metti métti da nga ko muñ waaye soo ko laalee mu dal sa kaw góor du fa door jigéen la joo yëngal boppam daal di geesu gis saltige geesu càmmooy gis jiraaf mu xool ndey joor farakab yi wër mu daal di toog nag ci gàngu naaj gi yëngal boppam na leen kan moo ñemee taxaw sama moomeel di tëgg nguur ba am lu muy tëral lu muy bëgg ak lu muy bañ ci réew ma kooku kan la ñu nekk ku ñuy wax Sonko doomi soxna suñuy wax Aminta Jóob la ak góor gu ñuy wax Séga Tayba ba mu juddoo ba léegi sii yëfi nguur rek lay doxal dëkk ba lu bari aaya na ko fa li tax ñu jóg nag article bi mujj a wax dafa wax ak waa Taïba na leen bëggatuma benn imp buy jógee fii di dem ci Lat Joor ah Lat Joor nag daal di taxaw jaraaf yi kenn ku nekk taxaw ci kam Lat Joor na ko jox ma ndigal saltige kenn ku nekk na ko jox ma ndigal Lat Joor am lu ko metti nag lool ndax ni mu toll Kajoor am benn dëkk boo xam ne soo ko wàññee matul ñeent fukki kër. am kenn ku fa taxaw bëgg am na dëkk bu mu yilif ba yilifum réew la jor mer nag lool ne leen gees nu tudd ngeen ne ñu ne ko sonk la tudd ñu koy dàkkantale yaay ja tax ñu naan ko sonk Aminata Diop doomi seega taybala am na rakk ju ñuy wax sëñ Tayba kooku daal moo taxaw ci Tayba Njaay bëgg laa wóotu te saayoo àgg na ci nee na Taïba Ndiaye gam dëkk bu fa genn bu fa kenn fayati lempo te su ko waxee Taïba Ndiaye dana ko waxi Mboro dana ko waxi Jogob dana ko waxi Sigal dana ko waxi Notto Gouye Diama ak Notto Diobass te ndaam la jëm te leer na mi dana ko waxi jandeer dëkk yooyu yëpp bu ay pexem sottee seen lemp dootoo ko jot la jor na ñoo ket jóg bàyyi leen fa daal di woo Linguère woo saltige woo jaraaf ñoom ñett def lii tubaab di wax congé de la famille war a waxtaan ak ñoom nag ci lan lay teg ci loxo yi ndaw yi ba bu ndaw yi mën a delloo loola kenn ku nekk joxe xalaat jaraaf ne ko man jaraaf Ndiaye Ngor li ma bëgg su fekkee defal nga ma ko ñii ñoom duñ dellu dañ leen rey mu ne ko da ngaa tàng xol geesu lëngéer na ko luy sa xalaat. mu ne ko li sama xalaat mooy téyel ñetti bay kenn ke mu yóbbu renseignement mu ne ko da ngaa néew kàttan consulter mboolem ñi àndal ci gàttal xelam kenn doyu ko ci mu daal ne nañ dem ceetaay ba ñu àndaat dellu si bu ne leen dama na waxtaan ak ñi nga xam ne fu ma fanaan ñu guddee fa kàddu yi àndut ana ñu jóge woon Taïba Ndiaye ñu ko noo nii mu ne leen dellu leen su ngeen demee ngeen ne ko Lat Joor nee na dana fa yónnee si bu ma ko bett nag mu ne waaw suñu mbokk yi ndaw ye jógee nañu mbul dëkkub Lat Joor ca péey ba ñëw nag Tayba Njaay war a wax si nag Sonko Lat Joor li mu nar